on est prêt à tout pour libérer ce peuple là et Ousmane Sonko kenn du ko laal te day nekk président 2024 day bokk bàyyi force day nekk président Sénégal man loolu laa gëm man du ma wax loolu laa gëm te ku mu neex seetal fu la neex dem leen ku la neex Macky Sall ak ñi mu àndal ak activiste kenn amalul dara loo mun toppee Ousmane Sonko amul amul bu ñuy impressionné nag non est-ce que vidéo c'est pas vrai amul du manque de respect du dara mais Adji Sarr dafa intelligente intelligente bu muy enregistré di ko déjà te loolu amul c'est pas vrai te nit ñi nañ comprendre loolu ñu ànd booloo te bàyyi ñu ñuy déstabiliser focus 2024 Ousmane Sonko day bokk Macky Sall du bokk ñaar yooyu la ñaari du bokk yooyu la day bokk du bokk Macky Sall du bokk Ousmane ko day bokk point ñu taxaw ci ferme kenn du ko laal kenn du ko jege kenn du ko xool parce que Sénégal nag ñoom moomuñ ko moomuñu police moomuñu gendarmerie moomuñu moomuñu Sénégal loolu daal laay am point yoo xam ne vraiment bëggoon naa ko wax si si Ousmane Sonko quoi. ok. dama doon laajte par rapport ak sortie bi nga xamante ne Serigne Bassirou Gueye def na ko. ñu mhm. bëggoon xam naka nga naka nga jàngatee sortie boobu noonu parce que gis nañ ci yenn contradiction yoo xamante ne am na si biir par rapport ak discours yu mu wax mu dem ba à la fin boobu ñu koy posé question da doon wax ni su fekkee wax naa ni peut être ni ma ko waxee la mais j'ai pas voulu dire ça léegi yow lan nga xalaat discours boobu noonu nga xamante ne. non c'est que Bassirou Gueye man la wax dëgg yàlla loolu sax nga man dafa am loo xam yàlla dafa ma ko xaw a may nag xam naa ne du vanté wala dara. man moom dama xaw am dama am réflexe bi Cheikh Omar am réflexe bu grave li ma gis ni ak ma grave Bassirou Gueye dama ko xool tuuti rek liir Maître El rek zappe ko nga nag comprendre nga bëgg dama xool tuuti rek liir Maître El Hadj Diouf rek zappe cest ma xam ñoo xam du ma leen seetaan man nopp nopp garmi laa am ñoo xam du ma ko dégg xool naa ko ma xam ne li muy wax noonu tegu ko fenn day pàccal forox rek comme ni ko wax lay di waxee ma zappe ko quoi ñun il faut pas ñu il faut pas ñu ñuy distraire nañ concentré focus ci essentiel Sénégalais dañu nekk si ay détails yoo xam ne amul sens ay nit ñoo sacrifier seen àdduna ñu leen di vilipender di monter ay photo di leen yàqal di yàq seen der di wax lu bon di leen tëj ci kaso bi ay nit ñoo sacrifier seen àdduna pour loolu mais loolu ne en fait ñun Ousmane Sonko bu nekkul ah, nekk ku jàpp ni instant ñëpp suñu vie man maa wax loolu te na ko sénégalais yi xam na ko jeune bu nekk xam te képp kuy activiste nga moo xam politicien na ko ñëpp xam parce que li mu bëgg mooy toog ci pouvoir ba keroog mu neex ko te Macky Sall bu toogee ci pouvoir mooy on est donc le combat fi ko yàlla def mu nekk fa nu ko nit ñi xam ñu xam essentiel ñu nekk autour de l' ñu jëm fi jëlee Macky ci fulla ak fayda ci ni ko constitution bi waxee nul ne peut faire plus de demande en ci xeex ci fexe ba ci bi ñoom ñu respecté justice pouvoir judiciaire moom boppam comme ni ñu ko waxee ci ci ci ci république ñu comme ni ñu ko parce que ñii yàpp ñu yàpp bu toll ñu taxaw jàkkaarloog Sénégalais di wax ay waxu troisième mandat ak ñun li ñu daj ñun 2012 fii ci dëkk bi ñëpp gis ko non il faut moo xam ñu ragaloo wuñu quoi mënuñu wàññi centimètre il faut Macky Sall xam ne on est prêt te gën a engagé ci jàkkaarloog moom loolu moom vraiment bëggoon naa ko souligner ci ci procureur dama ko xool rek gis met El Hadj Diouf zappé pour man benn kulul na rek et puis santul Guèye Basirou Seck la da Basirou Seck santul Guèye man Seck laa ko sant la santul Guèye ko mënul sant Guèye ku sant Guèye da nekk da ngay nekk gay da ngay nekk gaynde quoi Bassirou Seck la sant waaw vous avez vous avez pas d'autres questions alors on parler de de mes frères ku mel ni euh, baynag Gueye ak Ousmane Sarr ak Nit Dof aussi ah Mortal Gueye ma wax rek juste que en tant que man en tant que koo xam ne man dama doon rap mais léegi rabatuma nag bàyyi naa rap religion bi laay xeexal diine bi àndul ak Euh, nit dox dafa nekk nit koo xam ne dama ko respecté parce que nit ku gëm boppam la nit ku sincère la te rappeurs yi coow yëpp nit dox moo njëkk jël position nit dox dafa gis Pastef rek idée bi doy ko mu gis idée patriotisme rek mu ne ci parax dugg xoolul calculé wul xam nga di xool ma ma laam bari ko jege parce que nit dof ku dëggu la ku gëm la te nañu wax état du ko bàyyi parce que on dañuy mobiliser wu def ay manifestation pour la léegi nag Bayna Gueye ak ak ak Ousmane Sarr ñun ñoom ay membre mouvement Nittu Dëgg la xam nañu jugé nañ leen tëj leen deux mois ci ay manifestation te manifesté wu ñaari nit la ban trouble à l'ordre public la ñu war mun a def bu ñu demee ba di tëj nit ñaari weer ci trouble à l'ordre public ñaari nit mais y problème taxaw fi ñu taxaw ne libéré Pape Alé Niang y a problème y problème juge bi taxaw jàkkaarloog ñoom sans vergogne tëj leen ñaari weer non loolu dafa doy waar te loolu Sénégal yi bàyyiwuñu ko xel quoi man dama toog ma ni mais ñun ban Sénégal lañ nekk Abdoulaye Wade lu ne yàq nañ ko ko quoi mais Abdoulaye ñemewuloon lu mel ni ndax au moins joxoon na tuuti cër justice bi te Sénégal li ñu jox parquet bi doole bi ñu jox parquet bi dafa bari pouvoir bi parquet bi am dafa bari trop te jot na Sénégal yi jug ñu taxaw si loolu léegi nag du ma daaneel te waxuma si Pape Alé Niang ak Cheikh Omar Diagne parce que dama dund ak ñoom si kaso bi quoi vraiment Pape Alé dafa am loo xam ma xamal ko Sénégalais yi quoi ñu xam ko man li ma rëccu si Pape Alé Niang mooy li tax xaw ma ko woon bu yàgg parce que bi nekkee si biti boobu xam naa ko nii rek mais jegewu ma ko woon ko mais Pape Alé Niang bi mu nekkee si kaso bi dama doon dem néegam tout le temps ñuy waxtaan suñu amee ko ma mais Pape Alé Niang est un homme extraordinaire et qui a yoo xam ne war na ko mën a jëriñ Sénégal ba pare nag borom fit la nag parce que li mu sañ man sañ ma ko Pape Alé woon na pour dee ci kaso bi pour parce que dafa ma yéen ni ngeen di du nii man man duma ko yombalal Macky Sall man naa dee ci kaso bi dañ ci doon jàpp pour mu bañ a pour mu bañ a pour mu bañ a pour mu bañ a def grève de la faim parce que ñun diine la ñuy xeexal te diine nangul loolu yonent bi mooy suñu kilifa mais moom dafa ne ma xam nga bu ma waar bu ma waar loolu ma wax carré bu ma waar bu ma bu ma xutba il est très engagé nit ku dëggu la nit ku gëm boppam la ku ne xam nga ni Pape Alé Niang su bëggoon am xaalis am na ko tey tey tey su bëggoon topp système bi topp na leen tey tey tey kon nag sénégalais nañ gestu ñi nga xam ne ñooy xeex pour le Sénégal te bàyyi borom làmmiñu réew yi ñuy déglu nañ bàyyi borom làmmiñu réew yi ñuy déglu nañ déglu dëgg parce que dañu war a bàyyi bu ñuy xeex ñuy xeexee ay fen bu ñuy xeex ñuy xeex loo xam ne waa ji fekk ñu wax lu la neex rek moom ku baax la nañ bàyyi loolu. loolu la fa passé fam benn femme bu ñu ne moom rakk Marème Faye Sall la dafa dem ci palais bi elle travaille là-bas moom mooy togg day cuisiner ci pale bi ah ñu ne day fay ko chaque jour 14 millions xaw ma. chaque mois chaque mois la ñu wax xaw man ma gis ko statut ko femme bi woo ma téléphone quoi wax ñun lu ñuy def diine lañ ciy xool ma ne ko maa ngi tuub maa ngi su ma amee occasion naa ko leeral Sénégalais yi musul liggéey pare liggéeyu fa te mu ngi nekk ci en état de grossesse ñu perturbé ko ba loolu mën na ko indi problème ak yooyu moo ñuy topp bu waa ji saagaa Macky Sall nga ne ko baax la mais ku saaga sa kilifa suba beneen kilifa xaaral suba mu saaga sa kilifa mm-hmm. ay saaga la kenn warul cautionné ku ñëw nax leen Pastef mm-hmm. on comprend nag parce que da ngeen sonn ko on comprend mais nañ ànd ak xel koy xool muy saaga sax booy dégg saaga sax yow day tax boo ñaanee du nangu kon ñun nañ fexe ba ñu xool bu baax xàmmee li ñuy xeex teg ko ci dëgg parce que mosu leen dëgg aussi leader seen leader yi saaga Ousmane Sonko mosul saaga Bassirou Diomaye Faye mosul saaga kon nañ fexe ba ñun képp koo xam dafa bëgg ñëw ànd ak ñun ñu fekk fekk Macky Sall ci animosité bi mu leen yóbbu wàccee ñu jàpp bu baax a baax affaire u sexe depuis trois ans sexe tudd na fii génn na na ko nga gis nit taxaw jàpp ko Marème Faye Sall yaay la am na ay doom mais nga koy wax boo xamante ni ku ko waxoon sa yaay du la neex képp koo xam ne boo koy déglu bu say ay ñëwee nga wàññi ko mais bu leen ko déglu suba dina leen wax loo xam ne gàcce la andi leen ak dëgg te ngeen teg ko ci siraatal mustaqim loolu mooy muccal Sénégal te ngeen xam ne lii chayit la ku ci dee chayit la Sénégal ngeen di xeexal te dëgg la lii Sénégal moo toll foo xam dafa laaj xeexal fa lañ toll. donc euh, euh, de juste rek xam nga sama gars ñi may mooy imam bi ñu euh, Alioune Badara Diédhiou la tudd xaw ma waaw Alioune la boo xam ni Moustapha Diédhiou bu ñu arrêté quoi si ay discours yu mu defoon ko xam nga ci euh, combat bi nga xam ne gars war nañu ko xeex ci Sénégal jëm ñoom li ñuy bañ boo waxee ñu da nga def appel à l'insurrection ak ay yenn affaire yi quoi mais li am solo mooy xeex gis nga dund bisu dee bu jotee ku dund doo gor te ku ko ku jaay sa sa ngor ndax xaalis ah si kanam tuuti di nga ko gis te combat bi toll na foo xamante ne nii actuellement képp ku nekk ci xeex bi te du dëgg si yow yàlla dina la weer billaahi wallaahi loolu maa ko wax. Karim dafa mel ni man du ma fi nekk sa tur du ma si du ma nekk si loolu. man li ma li ma man mosuma ànd ak kuy saaga ñun gëmuñu saaga. kuy xaawi sutura jàmbur. ay diw lan toog deux heures de temps di seetaan nit naan diw tëri na kii laal def ne mais loolu am loolu du yëfi nit sax loolu bu leen si dara bett bu leen si dara il faut ngeen xàmmee liveurs yi ak activistes yi xam nga dafa ngeen dégg naan non ñoom du ñu activiste non ñoon man day gis gars activiste yu nekk naan non man du ma activité moo activité bi sax man activiste ça me dérange pas ak man activiste la mi dafay action ñu dañuy def ay flash mob flash mooy luy choqué mob mooy lu mooy flash mooy lu gaaw mob mooy luy choqué ñun ay def ay action yoo xam ni lu di 000 personnes war def ñun benn nit wala ñaar def ko loolu mooy mouvement ni ci dëgg siège bi nag Sidy Lamine Niass nañ ko tuddee salle bi ñu ko tuddee salle imam Ndao dañu nekk yi pareegul dans quelques incha allah semaine dinañ leen woow yéen ñëpp ci inauguration bi invité ñëpp tout le monde incha allah waaw euh, Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne gars dañu ma dagg Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne nag moom damay wax ma ni euh, je pense moom ku ne xam na sax man Cheikh Omar Diagne su may wax si moom sax ça daf may yéem moom laa chaque fois man Cheikh Omar Diagne daf may yéem li ma yéeme mooy Cheikh Omar day ñëw ci kaso bi di jàngal ay nit alxuraan di jël ay kaamil alxuraan di ko dugal ci kaso bi fekk ay band yoo xam dañu désespéré woon amatuñu yaakaar ci ci laaya bi mu leen defaraat ku ñëw ne man Karim dama waar ku ma waxoon naa dem bay liir ko gëm loolu rek dèjà dafa yéeme waxatuma laaj nga bëgg ravitailler am na benn activiste bu ñu ci kaso bi bu doon saaga mu ñëw dugg ci kaso bi Cheikh Madiane ko yorul añ reer ndékki di ko jàngal di ko toppatoo man dafa may nuyu xooluma ko man Cheikh Madiane kii yaa na nga ma mel ni miir bi xooluma ko sax parce que man am na ñoo xam ne doo leen fréquenté man pour wax la ni xam ne Sénégal daf leen soxla quoi Cheikh Madiane ci la bokk dëggu dafa am solo nañ dëggu bu ñu ut mbooloo bu ñu ut alal nañ ut dëggu nañ ut dëggu mouvement nitu dëgg bi nag dafa am benn kurél bu mag boo xamante ni benn mouvement la bu tudd ànd defar Sénégal ànd defar Sénégal nag ci diaspora bi lañu nekk Cheikh Sylla moo nekk Espagne moom mooy seen coordonnateur foofu ci diaspora bi moom waroon nañu fa am représentant bu fa waroon nekk mais ñëwul quoi ñoom dañ ñëw ànd ak nitu dëgg bi coalisé xam nga tudd ko nitu dëgg ànd defar Sénégal ñu war a préparer nag bu avenir Sénégal yu baree bari yoo xamante ni ñun dañu bëgg dem dugg ci instance décision yi imposer chariatu islamique taxawu ci ci ci yooyu yëpp ay mbir ay projet la yoo xam ne ñu ci waxtaan ak ñoom professeur ak donc wax ji bëri na jaxasoo na mais à la hip la quoi amuñu moom xam nga ñun mbedd quoi ñun mbedd bee ñu defar école française defaluñu mbedd bee ñu defar moo tax des ngeen gis wax ji di xaw a tasaaroo nii ñu ngeen di gërëm di leen sant wa salaatu wa salaam ala rasulullah jërë ngeen jëf am góor yoo xam ne nag seen awra dafa dañ ñi dañu tuuti leen ñi dañu gàtt mu di leen jural kers am ñoo xam ne sa daf leen di jàpp ba duñ am sañ-sañu laaj jabar Cheikh Ahmed Cissé indi garab gu tudd régu mooy réyal guddal awra gu ngir saafara jàngoro yooyu du lu ñuy lekk du lu ñuy naan pomaat la ak liquide nga koy diw suba ak ngoon ñaar fukki fan ak benn mu màggal awra bi ndax awra duñ ko yokk muy garab gu ñu jëlee ci meññeet ak i reen yu baax 100 pour cent naturel la amul benn effet secondaire